wala déet Petit Volcan Pablo ndaysaan wala déet ndaysaan xale yaa ngi noonu ndaysaan Guèye Saloum 2 ak Baye Fall ñu ngi noonu ndaysaan ñaari xale yaa ngi noonu ma ngay ña ngay dóorante ndaysaan Gueye Saloum 2 ndaysaan ndaysaan ak ñaari xale yaa noonu ndaysaan ñu ngay lewaatoo lu dara xew ndaysaan ndaysaan Baye Fall moom la mi tudd mooy laale ngay lum deux bu Mor Fadam ndaysaan Baye Fall réseau de Fatick daan na wala déet ndaysaan xale ba daan na